info Dakar Buzz euh, si YouTube bi Instagram bi ak euh, Facebook bi yëpp di leen dalal jàmm si actualité buzz de la semaine comme ni ñu koy defee rek euh, chaque samedi tey nag mbirum Njóoba Sekk la ñu koy dooree di soxna soosu rek ñu fekkoon mu ñakk bakkanam si arrêt SIPSI bi si anam bu ñaaw lool gannaaw ba ñu ko jamee rek paaka lu toll ko 64 fois boobu ba léegi nag ñu ngi wuyandi enquête bi ngir rek teg loxo ñu ko def jëf ju ñaw jooju bu ñu sukkandikoo a ñeenti suspect euh, ñoom ñooñee nag euh, xamaguñu ñan lañ ndax te joxewuñu rek seen i identification waaye luñ si mën a jàpp rek mooy di kenn si ñoom bokk na rek si ku ko mujjeewoo téléphone moom dam boobee ñàkk bakkanam di njóoba sekk wax ci Miss Sénégal octobre 2020 bi di Fatima Dione nekk originaire u Fatick moom nag Fatima depuis bañ ko tànnee comme Miss Sénégal ci at mi di 2020 ba tey rek nit ñi ngi si di yàbbi kii di oustaz Aliou sax desu si gannaaw benn yoon daal dina si wax rek si micro ñenn si suñuy naataango lam ci xam ne rek moo di bu ñu waxee ne Fatima mooy Miss Sénégal dañuy tooñ Sénégalais yi ndaxte moom mais mi suñu ñàkk kilifa yi la laata muy xamle sax ni e, kooku noonu ñu jël comme Miss Sénégal sax si atub 2020 bi ñoo ko dàkk gën koo taaru képp ñoo toog si kër yi. ba tey ci Miss Sénégal 2020 Fatima Dione lay desandi ak critique yi nga xam ne nii rek wàccuñu ko depuis ba ñu ko tànnee ko moom comme Miss suñu réew mii di Sénégal si noonu nag kii di jomman Sy Camara tamit daal dina si addu moom mu mee nag deful lu solal yére avocat kii di Fatima Dione daal di koy jox rek ay conseil naan bu mu faale ñiy wax ay waxu soxor si moom wa ilaa rek di koy critiquer na leen bañ a déglu rek te wuyandi yoonam te gëm rek boppam ci boobule xibaar ndeyu mbili gi nag di Miss Sénégal bi si boppam moom Fatima Dione daal dinay addu moom it ci critique ya ñuy teg si moom depuis ba ñu ko defee comme Miss ba Sénégal ci at mi di atu ba 2020 bi moom nag Fatima Dione nee na rek yi les critiques ñuy def si moom bettu ko benn yoon ndaxte réew bu Sénégal lañ nekk te nee sax critique yi meru si deful dara si moom ndaxte moom moomee rek gëm na boppam te xamal na boppam ne taaru na lool moo xamle ko moom Fatima Dione ci Miss Sénégal atub 2020 bi laay desandi waaye nag bile yoon ak euh, kuy wuyoo si turu ba Ami Dioum nga xam ne rek euh, moom dafa bokkoon si ñu doon xëccoo ngir nekk Miss Sénégal ci yaat mii nii ñu nekk moom nag jógee ko ca diwaanu cees daal dina si yëkkati ay kàddu la moo xam ne rek moo di yile résultat da koo jaaxal lool te bett ko ndax ndaxte moom moomii rek ba muy jógee cees di ñëw dafa yaakaaroon ne buy ñibbi dafay yóbbaale couronne bi gannaaw ba mu amee woon yaakaar ne moom moomee la ñuy tànn ko moom Miss Sénégal moom sax Ami Dioum nga xam ne rek étudiante la en deuxième année génie civil daal dinay xam ne sax ni moom matal na critères yëpp ngir doon Miss Sénégal moo xam rek eh, ci taille bi moo xam si couleur yaram bi moo xam tamit si culture général bi nee na moom daal matale na yëpp te ñu ñàkk koo tànn Miss Sénégal mënu koo comprendre eh, te doon na lu ko jaaxal lool. ba tey ngeen di teewlu actualité buzz de la semaine ñu àddu jëmale si leneen euh, loolu nag du leen lu dul lu doy waar lu am ci ab institution financière euh, bu doon foofee nag benn soxna boo xam ne ni saab responsable la si banque bu mag moo dal di sàcc rek ay millions si ñaari compte bancaire ñaari chef d' agent de transfert d' argent yu nekkee si boobule institut financière ndaw soosee nag sàcc yooyu les millions ab soxna ba benn musicien bu ñu ràññee lool la leneen ñu wax rek si mbirum Abdoulaye Seck ay atam euh, tollu rek si 40 ans moom nag ñu ngi ko doon atte ca barre du tribunal des flagrants délits bu Dakar moom sa Abdoulaye Seck ab jula la di jaay rek par bëccëg la ñu koy fay euh, moom nag ab clientam bi wuyoo si turu ba Dégène Diop nga xam ne yàgg nañu lool ba miinante moo ko yóbbu ca ko waral nag moo di Dégène doon faral di yónni doomam bu jigéen ngir mu koy yóbbul bëccëg foofee ca Abdoulaye Seck benn bés nag xale bu jigéen bi daa dal di yóbbu bëccëg Abdoulaye Seck di ko ne proposé ko ngir mu jox ko xaalis bi daal di koy tëddee si la xale bi daal di bañ wéññeeku seen kër daal di koy yeggee waajuram bu jigéen mi nga xam ne rek si noonu la jubalee ca diwaanu police daal di koy porté plainte loolee sax moo taxoon ñu ko doon àtte foofee ca tribunal des flagrants délits bu Dakar moom Abdoulaye Seck waaye nag ba mu tontoo laaj yu ko àttekat yi laajte yëpp rek ñoom ñoo ñi di àttekat yi dañoo weddi rek yooyu bu jigéen bi tekk si kawam waaye teewu rek tamit ñu tekk si ndodd Abdoulaye Seck ñaari atub kaso ngir rek violence exercée la nuit. yàddu si xibaar wuy circulé jamono ji si réseaux sociaux yi nga xam ne boo moytuwulee rek dana fi jur ay euh, bruit loolee nag du lenn lu dul ëmb benn xale bu jigéen boo xam ne ni day wéy ay atam toll si 17 ans képp moom nag xale bu jigéen boobee nga xam ne rek benn directeur institut privé bu mag lool moo ko xale bu jigéen bi eh, doon na tamit ku ñu ràññee lool eh, si ab émission bu siiw lool bu doon daw eh, ca télévision Futurs Médias mu doon nag lu nar indi coow saa su famille yu xale bu jigéen bi jëlee décision ngir porter plainte directeur institut privé boobu. benn xale bu góor bi ay atam toll si 19 ans nekk originaire Montigny euh, sur Sambre nekkee rek ci wetu Charleroi la yoon dal di teg loxo moom na ko xale bu góor bi dafa violé rakkam bu jigéen bi ay atam toll si 13 ans maanaam fukki at ak ñett képp euh, si noonu rek xale bu jigéen bi dal di si jëlee ëmb bu ñu sukkandikoo si la nouvelle gazette ëmbam boobee sax moo waral rek euh, yoon tàmbale ba enquête yi moom nag xale bu jigéen bi ba ko enquêteurs yi laaj dafa njëkk joxoñ rek baaraamu tuuma waajuram bu góor waaye nag enquêteurs yi dañoo mujjee wëlbatiku si magam bu góor bébé ay atam toll si 19 ans képp si noonee nag moom moo mag na ni rek moom moo violé rakkam joojee te ba mu koy violé xamoon ne la muy def dara baaxu si waaye xamul woon ne rek tëddee rakkam joojee doonul lu ko war bu ñu sukkandikoo tamit si le quotidien xale bu góor ba jotoon na violé tamit ñetti rakkam yu góor loolee sax moo tax ba yoon daal bés donte sax mi ngi woon ci liberté conditionnel wax ci vidéo buy def buzz bés yi ci réseaux sociaux yi xewee ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar boobule vidéo nag lu leen lu dula étudiante ba doon soutenir euh, ca faculté médecine ni ki mercredi ba li ñu génn moom nag ba mu présenté thèse ba noppi la docteur Babacar Fall euh, daal di koy demande rek mariage ci kanamu public ba fa nekkoon euh, dal di sukk rek ay moom ci kanamam daal di koy takkal bague de fiançailles bi loolee nag juru mbégte mu rëy tiis ak mbetteel si xale bu jigéen boobu doon soutenir ba tax rek mu jooy fa jooyu bànneex si kanam rek public ba fa nekkoon. xibaar wu bees daal dinay am rek si mbirum ba Ndiaye di élève bu dóor professeur EPSM ca lycée bu Blaise Diagne ba toj xar karamam bi yëpp comme ni ngeen koy gisee noonu boobule xibaar nag bu si amaat du lenn lu dul monsieur mbeng di eh, kuy jàngal élève boobee di ba Ndiaye moom nag dafa taxaw rek solal mbubbu avocat élève am gannaaw rek ba mu koy defendre fukki baatu ba kaso la ñu teg si ndodd ba musicien bii di fay gannaaw ba ñu ko joxañee baaraama tuuma rek ne dafa violé ñaari xale yu jigéen yu seen at toll si fukk ak benn ak fukk ak ñaar moom nag fay nga xam ne ay atam na si 68 ans di mu divorcé am sax doom bu jigéen bu am fukki at ak juróom weddiwul benn yoon bile mbir gannaaw sax ba mu jotee xamle naka la doon def rek ba tëddee ñaari xale yu jigéen yooyu ba daal di leen di rek euh, filmer du si kaddu yu daw yaram yu Aboubacar Sadikh yëkkati di frère Mohamed Cisse nekk rek américain bu ñàkk bakkanam gannaaw ba leen ay def ñaw te songe foofee ca Medina Baay moom nag Aboubacar la moo xamle rek moo di bile mbir métti na lool waaye dina tax rek ba lii di diine ji ak famille bi gën a am rek doole. mu ñàkk bakkanam si ab crash d'hélicoptère moom Kobe Bryant tax ba rek ba ñëpp di koy rendre hommage. Euh, à travers euh, partout ci réseaux sociaux yi basketteuse bi nag di Yacine Diop desu ci gannaaw benn yoon moom tamit daal dinay rendre hommage rek kii di Kobe Bryant ba noppi rek dal di def ab tatouage ci yaramam def ci rek chiffre 24 mu doon rek luy firndeel ne loolee dara taxu ko jëkk lu dul rek euh, delloo njukkal kii di Kobe Bryant ñu wax si feebar wii di coronavirus ak suñu doomu réew ya nekk foofee ca Chine njiitu réew mi nag Macky Sall daal dinañ dox jox ndogal ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur ngir mu jox rek kenn ku nekk si treize étudiants wu Sénégal ya nekkee foofee ca Chine daal di fay coincé eh, lu tollook rek mille dollars wala yemook eh, six cent mille francs ku nekk rek loolu lañ koy daal jox bu ñu sukkandikoo nag si l'observateur boobu les décisions ñu ngi ko jël ni ki alxames people ñu dooree kook compte whatsapp euh, comédien bii nii di Samba Sine alias Kouthia mu ñu piraté moom nag Kouthia moo ko xamle di wax rek nii boobu les compte whatsapp am dañu ko piraté euh, benn mal intentionné rek moo defee li ni mel ba noppi dal di def sestatem ay image yu tegginewul te ñaaw lool ay image sax à caractère pornographique la euh, si noonu rek moom Kouthia di ko ñaawlu di ko méttitlu gannaaw ba xam leen ne jaaxal na ko lool eh, ba mu ca noppee tamit lay dellu rek di ñaax sénégalais yi ngir rek ñu gën a bàyyi seen xel si linimel Youssou Ndour mi ngi wéyandi rek di ñàkk ay employéem si waxtu di jëbub ak ña mu àndal rek di wéyandi di recruter élément yu baax yaa nekkee ca télé di télévision Futurs Médias moom nag njiitu GFM bi daal dina ñàkkati rek beneen employéem bu nekkoon si rajo boobee di RFM di animatrice bi wuyoo si turu ba nga xam ne rek def na si rajo boobe ñaar fukki at moom nag daa jël décision rek quitter boobu les entreprise ngir rek jublu si yëfu boppam leneen gannaaw ba mu jëlee soxna actrice bi si série Mœurs di ay dara attaquant sénégalais bi di Babacar Gueye daa dal di jóge ko rek euh, foofee ca Paderborn dal di jubali euh, ca Karlsruhe nekkee euh, ca Bundesliga de moom nag ancien Dakar Sacré-Cœur bi dafa am rek maanaam dafa signé sax laa koy waxee contrat wu un an et demi beneen xar kanam la ñu gis si actrice principale Eh, bii di Kadia Sall si photom yu mu mujjee rek eh, fësal si réseaux sociaux yi comme nu ngeen koy gisee noonu eh, mu nekk rek kanam goo xam ne nii rek xàmmeewuñ ko si moom moomee di kaja sal ci people ak Colette Xët mi ñu wax na rek dañ ko sëriñcu moom sax Colette nga xam ne xel mi da des rek ci jamono ji gëj nañ koo gis si seen théâtral yi moom comédienne Bawol bi ay mbokkam nag ñoo ngi xamle ni rek moom moomee rek nga xam ne xel mi dafa des doon situation boo xam ne ni nakari na waaye ñu ngi sant yàlla ndax ay xamelu kole ñu ngi leen si jàppale eh, si bépp boor si noonu ñuy xamle tamit ni bile feebar sax mu ngi ko dalee fii si dakaar gannaaw ba fii ñëwee woon rek ci la ko dalee moom mu mee di kole tëxët waaye nag nee nañ mu ngi faju te ñoom ñun ñee di ay mbokkam ñu ngi toog rek eh, si wetam ngir rek di koy surveiller si anam gi mu waree aywa ñu wax ci couple bi di Nasira Ndiaye ak monsieur Faye seen couple boobu nag nga xam ne defoon na buzz lool ci réseaux sociaux yi gannaaw seen mariage bi couple bi nag daal dinay jeex ndaxte ñoom ñaan ñoo ñee daal dinañuy tàggoo si noo ne célèbre comédienne boobee di Nasira Ndiaye daal dinay libre rek gannaaw ba mu nekkatulee ak borom këram nga woon di monsieur Faye wax ci nag rek tiis bu dal si ndoddu Baaba Maal moom nag dafa ñàkk ku sori lool si moom kookee nag du kenn kenn ku dul Mama Gueye nekkoon ab guitariste ci seen orchestre boobee mu doon nag lu leen bettu lool te métti ba tax rekk ñu leen koy jàll ñoom waa groupe Dandele ñool yëpp. wax euh, ci diggante Edmond Flow ak euh, Esther Ndiaye internet yi nag euh, ñu ngi wëyandi di laaj ndax ñoom ñoo ñee dañoo bëggante dëgg-dëgg wa ilaa rek nekkul réalité gannaaw rek ba kii di Edmond nekk rappeur waaye tamit acteur fësale rek ay photo ci réseaux sociaux yi di photo mariage mu ànd ceeg rek kii di Tere Ndiaye euh, naan rek bis bi ma doon xaar euh, si noonu rek euh, nit ñi di internet yi sax lay wax di naan rek dëgg la wala buzz ba xam ndax saison 2 maîtresse d'un homme marié la ñuy annoncé loolee yëpp rek dañuy xippi suñuy gët di xool te toppandi rek xibaar wi ba xam lan la réellement. Abou Bakri Samb di woykat waaye tamit taalibe Tidiane daal dinay jël soxna si bés yi ñu génn gannaaw rek ba mu génnewee bu yàggul dara ab clip buy firnde rek cofeel bu mu am si Serigne Saliou Mbacké yi doomu ba Serigne Touba photo boobu nag ngeen di gis si écran bi sax bokk na rek si photo ya ñu jëloon si bésu bu mariage bi ñu leen di souhaiter heureux ménage ñoom ñu ñee di monsieur et madame Samb. aywa wax si Imam Kanté Touré ak Bijou Ngoné eh, ñoom ñaar ñu ne nga xam ne téléspectateurs yëpp dañoo jàppoon 2STV di xaarandi seen jano bi eh, nga xam ne annoncé woon nañ ko sax bu yàgg depuis coowal ci surtout Wally Seck bi eh, yaakaaruñu woon sax wala mësuñu woon yaakaar ni kii di Bijou Ngoné animatrice su 2 dana mës a invité rek imam bay partagé moom mu émission foofee ca 2 ba tax rek ñëpp di ko doon xaarandi waaye nag dañ ko mujjee annulé boobule émission mujjutoon am ndaxte imam Kanté dafa leeral ci page Facebook am moom nag imaam nee na 20 h fekk na ko foofee ca 2STV ba gannaaw bañ ko waxee woon ne lu mu yàgg yàgg na fa nekk 21h 10 minutes ba 22h jotee nag nee na ci la dal di ñibbi moom imaam ndaxte dafa mel ni rek ay dispo dafa am ay disposition technique ya ñu jëlutoon te kii di Bijou Ngoné dafa ñëwoon en retard gannaaw coowal animatrice bi di rangu ci réseaux sociaux yeeg grand place yëpp ci bés yi ñu génn Mame Makhtar moom moomee dañu ko joxoñ baaraamu tuuma ne day distribuer ay préservatif euh, si noonu nag moom ma Makhtar Gueye daal di say mer ba futt yëkkati sax ay kàddu menace ne rek euh, ku wax bile xibaar nii si moom nga xam ne dara amu si dana ko yóbbu rek euh, si loxo yoon mu daal di si def liggéeyam Khadija Ndiaye di doomu Aïda Patra waaye it tamit soxna Amet Thiou léegi rek ca 2STV lay liggéeyee comme animatrice la koy firnde nag du leen lu dul photo yamu boobile eh, foofee ca plateau ya nekkee ca 2S TV tàggat yaram dañu koy door rek làmb ji ak euh, doomu géejuwaay bii di Balla Gaye 2 euh, moom nag daal dinay addu rek euh, si cachet bi nga xam ne nii dafa wàññeeku lum si xamle nag moo di promoteurs yi mënuñoo dem rek sans mbër yi waaye mbër yi tamit mënuñoo am combat rek te promoteurs yi làmb ñu seen poche bu ko defee bu ñu amee ay partenaire ñoom promoteurs yi wa ilaa rek ay annonceurs da leen di gën a oyofalal boobu liggéey laata muy leer leeral ni sax moom Balla Gaye nii dañoo war a xam ni nu marchandise yi eh, amee ay coût la mbër yi amee tamit ay valeur eh, si noo mu daal di si joxe sax ak ba exemple bu mu jël rek ne soo doon jënd tey oto doo fay rek benn prix bi si oto boo xam ne nii eh, Toyota la Jeep wala beneen marque ba sa noppee lay naan rek te ñoom ñoo ñëw rek pare nañ ngir wëccante xalaat ak promoteur yi daal di si trouver rek solution mu yokk ko si ay kàddoom moom doomu géejawaay bii di Balla Gaye 2 aywa su ma noppee ci Balla Gaye de damay àddu si taay singa bi di Eumeu Sène moom da nga xam ne daa daal di réaliser rek lépp loo xam ne kuy liggéey nii loolu ca rêve la moom nag Eumeu Sène koppar gi muy am si lamb ji ay at da ko daal di investir rek si tabax émission Bantamba nag moo koy firndeel gannaaw ba ñu ko seeti jee woon eh, ci këram googee daal di gis rek villa bu taaru lool ba mu tabax foofee ca Lac Rose mu doon rek réussite bu rafet. si champion boobee di Eumeu Sène nga xam ne rek jox nañ ko cër lool si lu la làmb fii si Sénégal. Malick Niang daal dina yëkkati kàddu bu rëy loola jëmale ko rek eh, si ba muy bëree kii nii di Ama balde boobule kàddu nag nga xam ne moom Malick Niang mu ngi ko yëkkatee si ab vidéo di si xam xamle rek nii dañu ko drogué woon eh, ci ba muy rek janook kii di Ama Baldé te nee sax xaritam moo ko defoon li ni mel. football ak mercato Barcelone latéral droitu gaynde yi nag di Moussa Wagué daal dinay rek mujjee rejoindre club français bi OGC Nice ajjuma nag si ay waxtu yu néew rek laata ñuy tëj rek lii di mercato hivernal bi nga xam ne nii sax si bésub ajjuma boobee la ko tëj rek ba minuit jotee. tëjee kook CAN 2021 beeg mondial 2022 yi nga xam ne nii rek euh, soo moytuwulee dina doon yoon bu gudd lool si gaynde yi gannaaw ba ñu amee idée si ña ñu war a dajal rek euh, si lu ñeel élimina éliminatoire coupe du monde 2022 yi ñoom sax euh, élément Aliou Cissé yi nga xam ne rek dinañ si dund 18 mois yoo xam ne ni yu métti lay doon buñ si boolee qualification CAN 2021 yi lépp lépp. lépp rek danañu disputé si lu ñeel fukki match ak élément wu Aliou Cissé yooye tàmbale ko rek eh, si mars 2019 ak luy toppani si éliminatoire yi eh, pour Cameroun 2021 nga xam ni sax daal dinañ koy tàmbale depuis weeru novembre atib 2019 ba lee ñu génn